di nuyu sama waa dëkk waa Saajo waa Jolof di nuyu waa Taïf waa Bayla waa Gassane waa Thiel waa fas Mbao xam nga di nuyu waa Diamaguène ak sama waa écurie waa Lamsar di nuyu Sénégal yëpp waaw di nuyu sama fami nag samay mag sama taaw papa xam nga Pape Sarr teg loxo nuyoo bi ci loxom pour mu jàllale ko ci famille Sarène bi yëpp di nuyu axlu làmb yëpp tamit di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax sama xarit. di nuyu sama yaay bu baax a baax sama xarit man tam maa ngi nuyu sama yaay bu baax a baax moom sama xarit la sama lépp la mais kañ nga dugg ci làmb. Euh, maa ngi dugg ci làmb en 2016. 2016 waaw. maa ngi dugg ci làmb en 2016. ñaata combat nga jot a def. bëri naa sept combat. ñaata victoire. bëri naa am naa six victoire. six victoire waaw. kan ak ñan ak ñan nga bëri. naa ak Papa Sow Junior Canta Belende Omar Fall. Jeus Bébé Bounama Infran Rouge

mais mais mais loolu loolu loolu jege yaantoo na ci mbër wala wala da ngay ngay da ngay dëggal li Père Max mag Père Max di wax mbër du préparé dafay pare. waaw parce que moom moo ma yor moo tax. Mhm. Père Max moom moo ma yor moom bu waxee loolu xam na am na fu mu ko teg moo tax mu wax loolu. waaw parce que xam na ñi mu yor ñooy ñooy ñan moo tax muy wax loolu. mais ku la gis ak sa taay bi du laajte ana mbër mi ndax saa boo simee ko dañuy gis yow benn état de forme boo xamante ni nii kenn du wax ne booy Sadio liggéeyul euh, naka ngay naka ngay waajalee parce que dañuy gis euh, boo jógee waa jàmm gën boo yëpp dañuy ju topp sa gannaaw sa diggante ak ñoom ak entraînement yi naka nga koy doxalee. waaw respecté sama bopp rek ak respecté ñi ma nekkal rek man xale bu ndaw dama lay jox cër mag ma jox la cër ndax àdduna moo mel noonu nit fa nga nekk rek boo fa amul cër day métti ci yow. te dans la vie il faut nga jox ñëpp cër pour nga mën a egg fi nga jëm parce que nit ñi cër rek la ñuy jàppee nit koo jox cër mu ànd ak yow waaye koo joxul cëram mu balaak sa bopp te ànd neex na waaye koo longool mu dem ak magam neex na waaye ko ba mu dem mbagam magam. mais dañoo gis sa combat mujj bi nga xeex bëre daan jël bu mais boobaak léegi kenn gisaatu la est-ce que promoteur yaa ngi lay woo di wax waaw. bi ma bëree sama combat bu mujj bëri naa yàlla may ma ndam mais ma koy santewaat yàlla rek mais instant bii nii mbër yi ñoo commencé di daw di daw sama combat. ah mais Sadio nag Sadio nag Sadio nag dafa góof da ba mbëy di daw sa combat mbëy lu lay dawee. mbër yi ñu ngi may daw li tax ñu may daw mooy parce que ku ma ci jëlul ren bu dawee déwénee day gën a métti ci yow te gars yi dañ ma war a jël gars yi dañ ma war a jël ñu bëre parce que man dama bokk si làmb man kenn wutalu ma yoon yu neex non. gars yi yoon yu ñu leen wutal yu yomb yi lañ war a bàyyi. Ah. <laughs> waaw baax na dégg nañ ma jël ñu bëre mbër yi nañ bàyyi daw bi Mor Kankang na ñëw ñu bëre. dafa am mbër Ada Fass ku ci pare na ñëw ñu bëre. Sadio nag Sadio nag bu ñu toog fii mu xaw a fiix kër gi sedd. ah nga toog fii di ma wax ay ay ay Mor Kang Kang Mor Kang Kang gis nga ni mu def ko ba mu fees kenn xàmmewul benn ban booy yëmbal la Mor Kang Kang jàpp ko toj ko ci butéel. billahi wallahi taalahi. Mor Kang Kang lu mu indi stade ma triplé ko indi ko stade man mbëru dëkk laa dëkk ma toog. dimanche ñëwoon nga stade. dimanche ñëwuma stade parce que dañ nekkoon ci préparation combat cointre bi. moo tax mënu dem est gis nga gis nga li li li moo Kang Kang indi stade bi. déggoo li ma la wax Mor Kang bu indee douze ma indi vingt cinq bu indee douze ma indi vingt cinq. mais booy Sadio mi gëm-gëm lay waxee de. non li ma lay wax dama ko xam man mbëru dëkk laa man du ma mbëru koñ man Fass Mbao laa dëkk dëkk Jolof doon doomu Jolof doon doomu Fass Mbao bu ma jugee waa Jolof yëpp jug waa fas Mbao yëpp jug waa Diamaguène ñëpp jug kenn du des buun fas Mbao yëmbal kenn du des. mais man mais man mais man dama gisoon dama gisoon combat yi gën a neex ndax damay man damay xool ci adversaire bi taay bi ni mu tollu ah, su ma woon deux giga wala booy wala wala wala ñaabu ndaw surtout sa digganteeg ñaabu ndaw. sama digganteeg ñaabu ndaw bu pare woon suba suba ma bëreeg moom mais boo yooyu duñ ma jël xamul tax boo yooyu duñ ma jël ñun dañuy wut yoon bu nooy te fii nooyul. mais ñaabu ndaw wóolu woon mu nooy de. non fii dafa dëgër këk fii sa diggante 2 Giga sa digganteeg 2 Giga loolu sa digganteeg 2 Giga Sam dox na sama combat man ak moom avant muy jël rëm sama combat ak moom la Sam dox li may wax ragalu ma ko peut-être xaw ma nag nuñ def ba combat bo taxawul mais Sam toog naa ak moom mu ne ma sa digganteeg 2 Giga laa bëgg di dox combat bi ma ne ko man bu paree rek pare naa mais nii nii comme gannaaw jóge na ci combat am ca nga jóge ci combat am ci ndam buñ doxoon sa diggante ak moom. looy wax nga ci ay combat am ci ay ndam. waaw nga ci ñaari combat un mois. six combat am ci ay ndam. nga jóge ci six am ci ndam sa diggante ak deux bu paree mu ñëw ñu bëre. maa ngi koy ñaanal nag fee mu dem defi MMA yàlla na ko fa yàlla may ay ndam dégg naa temps yi demoon na Paris defi MMA xam nga geste bu nice te tamit suñu couleur dëkk la teewal yàlla na ko fa yàlla may ay ndam mais bu paree bu ñëwee ñu bëri man ak moom Euh, naka nga gisee combat Quench Double Moteur. waaw combat boobu moom mënu ci sori quoi parce que dama ci tax rib. yaakaar boo ci taxee nga boo cee mën a wax. dama ci dama ci jege lool. naka nga ci jege. parce que Quench dafa nekk sama doom nday ba pare ñu bokk écurie mu nekk sama turandoo ba pare yàlla boole ñu ci côté yu bari. Hmm. muy nekk borom xol bu rafet. ma koy ñaanal nag yàlla may ko ndam lu sedd ci barki Serigne Babacar si ma yaakaar yàlla oyofal ko ndam lu sedd guy jox yéene naa ko te incha allah bu ko yàlla fayee xolam kañ si dina am ndam. waaw double moteur nag loo koy wax. double moteur na xaar rek. Mm. <laughs> waa Rëbës du ñu yëngal du ñu yëngu. comme double moteur la kay nañ ko dépiécer rek. déclenché ko pièce ko rek jéem ko yóbbu feeraay xool nu muy demee loolu kese la amul leneen. soo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. waaw kàddu yu mujj yi mooy pour woowaat sama mbokk yi rek di wax mbër yi ne leen nañ ñëw ñu bëre man ak ñoom Agogo. bu ñëwee ñu bëre man ak moom làmb gënul neex loolu. wa tëkkuwuma kenn nag ñaanuma kenn sens parce que defuñ fi lu ma fi deful. tëkkuwuma ñaanuma kenn sens mais dama leen di wax combat yi neex mbër yi nañ bàyyi daw yi ñëw ñu bëre. agogo na ñëw ñu bëre Onde le na ñëw ñu bëre ku ci ñëw ma may la sens ku ci ñëw ma may la sens booy ay Mor Kankang booy yëmbal Ada Fass Tafa Mbër caatu ngéwél gi booy Dakar ñoom ñëpp ku ci ñëw ma may la sens bàyyiwuma kenn. billaahi wallaahi. da nga bëgg a tooyal xaftaan fi mu toll maanaam dama bokk si làmb te dama war a wane sama bopp. man kalaasu ay ñoom Zarko mbay guy gi yooyu ñoo ay xaar te booy yi buñ ma jëlul day gën a métti ci ñoom dama leen romb dem jëli ji ñooñu te ñooñu bu ma leen fa fekkee mu gën a métti ay Boy ñaa ay Sa ay Garga Mbossé xaar ma ma ñëw te li ma lay wax nii bu ñu fi yàlla bàyyi jàmm ngay seetaan làmb ji di ci teg sa bët. ah yàlla ñu fi yàlla bàyyi. incha allahu rabbi di woo sama waa dëkk nag waa Sadio di leen wax ne leen seen doom a ngi nii di woo Jolof yëpp waaw tund saajo bi yëpp maa ngi leen di woo waa Gassane Thiel Taïf Bayla xam nga di woo waa Fass Mbao waa Diamaguène am bàyyiwuma kenn képp kuy bëggee booy Sadio waa Diouroup waa Ndioudax waa Diarex waa Soum bàyyiwuma kenn képp kuy bëggee booy Sadio rek booy Sadio mu ngi lay bëggee di la waaw di wax nag Gina Ibe namm naa ko trop waaw na ñëw na ñëw naa de <laughs> na ñëw sonn naa Gina ñëwal sonn trop vraiment. gis ngeen ni lañ koy defee ci Wassare Lamb Dakar Midi di leen jox dig daje di kontaan ci Boy Sadio bu baax baax di leen wax na nag bàyyi bàyyi leen ko xel ndax xale la te daa bokk ci yaw ci làmb boo xoolee kombaam bu tuusee mu neex su bàkkoo mu neex su bëyee mu neex te ndaanaan la bàyyi leen ko xel bu baax a baax fii laa ko waxee ci Wassare làmb di leen jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf.